الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي ولا رسول بعده على من لا نبي ولا رسول بعده سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله رسول الله وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين mbokki jullit yu tedd yi nekk ci gox yi fasantikoo yi ci réew mi ci bitim réew di wéttalikoo leer ak jamono maa ngi leen yi nuyooti de nuyoo bi gën a tedd muy asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu di del siwaat di sof ak yéen rek juróom ñetteelu yaa ayyuha alladina amanu yi nekk ci alquran bii mu yaa ayyuha alladina amanu laa tubtiloo sadaqaatikum baqara deux cent soixante-quatre yàlla ne hee yéen gëm yàlla waaye waaye bu leen tëpp seen yalwaan yi li ngeen yalwaan aka néew bariwut bu leen ko këppee ñaar yi këpp yalwaan mbaa sax ñett yi këpp yalwaan bu leen yàq lu baax li ngeen am aka néew ci wax wax ja mooy dimbale nit ki ba pare nga am lu baax yàlla marqué la point bis jot rek nga taxaw di ko weer benn waay ñëw ne la waaw dooma dimbal dimbale dix mille am nga ne ko hée ngaa yéex a ñëw de léegi la fi bàyyi diw jóge moom laa ko jox dajee ko xale bi ma sàmba wax la ko nga wax ko loolu ma demba wax la ko nga wax ko loolu Aliou Cissé wax la ko nga wax ko loolu Lamine Cissé wax la ko nga wax ko loola ba ba gerte bi di sooy sa ñaari junne yi sa ñaari junne yee sa kan waay sa ñaari junne yi le nga jox bàyyi diw weer nga ko ci fukki nit kooku mooy dimbaleen nit ki ba pare lor ko waaye mu ne tamit bu leen dimbaleen nit ki di ko ñaax man nu buñ ko waxee mooy dimbal nit ci ba pare bis jot rek ngeen yàqoo nga taxaw naan ko nga ñàkk jom wallahi keroog ba sa bët yu xonqee maa la dimbale woon loolaa bon nit kenn waru koo dimbale di ko ñaax di ko tiiñal di ko weer ci kanam gor ñi ñaar yi de day këpp yalwaan dimbale nit ki ba pare ñaax ko ca mooy da koo dimbale ba pare déggale ko ndimbal la asa nag mooy da ngaa dimbali nit ki ba pare déggale ndimbal la ku mu bëggutoon mu dégg ko moom ndax ñaareel nit ku ne buy sàkku ndimbal benn mu guddi mu lëndëmoo guddi gi ngir bëggul kenn xamal ko walla mu bëccëgoo bëccëg bi ku mu fa fekk sax mu toog ak yow dafa lay wax ne ah baal ma de dama laa soxla woon ñëpp génn ngir bëgg nga gardeel ko personnalité am yéen ñaar rekk ngeen nekk kenn ñetteelu leen ku dul yàlla mu wax la soxlaam sa xol yëngatu nga làmb jox ko ndaw yi wuurëy waaye mu wane gannaaw rekk nga xawi xaat suturaam ku ñëwati nga ne ko ah diw de laa ko jox léegi dajee foog moom walla bis jot yéen ñaar ngeen yàquwante nga taxaw ne ko bis sàngam maa la dimbale woon ci nàngam ñaar yi dafay këpp yalwaan kon ñaari kàddu la kàddu baaxut fu jëf tabaxee bâtiment mbaa mu tabax benn immeuble làmmiñ mën naa taxaw màbb ko ci benn seconde te kan mën naa am ba koy cër yee tabax ay xat la ko tabax làmmiñ taxaw màbb ko beneen bi nag comportement la mooy njistal yaa ngi joxe ka nga jox waxoo ko ko ña nga wan waxoo ko ko ji déggale ko ko mu ko keneen mais da nga ko def publiquement pour ngistal loolu nag bala nga caa mer rek corona bi jamonoy corona bi ndey saanam rek xam ñoo xam ne joxewuñ lu dul kotol te la ñuy joxe sax askan waa ñoo ko moom yaa ngi nekk benn gox boo xam ne yaa fay meer ba askan wi la fal ngay mer bi bitse bi ngay liggéeyee ñoo ko joxe ñoo koy watee ñii di fay juute jafe-jafe dal ci seen kaw ñu ne la delloo ñu suñu alal ja nga dem luye ji caméra su ko defee yore benn kotol waa a téye fële meer ba nga téye fële wane ne maa leen dimbalee kotol yi wala maa leen dimbalee saako ceeb yi jël yaayu jàmbur yi leen weer jël baayu jàmbur leen weer jël magi jàmbur yi ak rakki jàmbur di leen weer jël quartier jàmbur yi ñu dëkk nga naan ñu dëkk fii ay néew ju doole lañ yow yaay am doole. yow sa am doole ji ngay jaay di ko wanewu lépp ak yu yuñ tegale jox la ko nga war koo séddale la nga jël ko xamale ko la ci ëpp ci sa bopp la nga war a delloo ci nit ñi néew nga yaa ngi koy tiitaroo ci seen kaw loolu kenn warul xam droit di ko def bu ko benn maire def ku ko def yaa ngi def loo xamul li ngay joxe moomoo ko <coughs> ñu ngi koy jox ñoo ko moom alhamdulillah kon nag bul ko tiitaroo ci suñ kaw loolu baaxut nañ ko daw fu ne nga dem naan maa ngi yóbbu lii fële maa ngi yóbbu lii fële bu kamera bi ñëwut man koo feeñal doo ko joxe yaa ngee ñaan nañ koy jàllale ay yoon nga jële ndimbal ab gox fu sori romb sa mbokk yu néew doole yi di ko yóbbuwaat wane ne maa dimbalee diw lii ci li nga doon xootee jublu ca mu wane ne yow yaa ngay dimbale boo liggéey bu ay marché amee ñi mën laa bàyyi xel yàlla taxut dee leen def te yàlla tax bàyyi leen ngistal ñi ngeen di ngistalal mënuñoo fay booy wan booy jëf wan ko ki mën a fay waaye ku mënta fay loo koy wan sa jëf yi te wallaay ki ngay ngistalal bëgg mu lay tàccu la ngay joxe boo ko ñàkkee mu saaga la bu yàggee mu fàtte la ak foo mën a jaar ak moom kon jox ko ku ko dul fàtte jox ko ki koy fay waaye nit ñi ku bëgg a dab seen bànneex toroxtaane dal na la nit ñi kenn mën ta seen bànneex buñ la taggee tey ëllëg ñi xas la buñ la baaxalee tey ëllëg ñi bonal la kon del leen def te yàlla tax rawatina yéen politiciens yi dee leen def te yàlla tax ba nga jël nit ñi di leen jaay ba nga jël nit ñi jàppe leen ay marchandises bu jafe-jafe amee ngeen bëgg profito ci seeni kaw pour bëgg bu ëllëgee li ngeen di sàkk ci ñoom ñi man ngeen man koo am ca ñoom matu ko koy dimbale na yàlla tax te koy dimbale ni nga bëggee ñu sutural la yaa ak ay mbon mbon yoo bëggul kenn gis yaa loo xam ne kenn xam ko waay waay kon nimit bul weer gor yi di leen door a dimbale man duma nangu ku ma toroxal door maa teral man duma jëndee toroxtaane dee leen nangu dee leen yëg ne ki leen di defal dee leen ko dee leen jiital ki leen defoo ci moom ki ma defoo moo ma gënal ku ma defal waaye buy nangu ku la defal gënal la ku la defoo ndax xamoo ko ëpp sa bopp saa yoo ñàkkee sa bopp ñàkk nga lépp xamatoo tus ku la na ma toroxal ba koog limaam waaye bala nga maa dimbale publier ma bañ xam ne fii laa dëkk bañ xam ne nii laa dëkkee waaye waaye waay loolu baaxut baxi leen ko moom la yàllay tere ni ne bu leen këppati seen yàlla yalwaan yi ndax bëriwut bu leen ko këppee ñaaxe te mooy dimbalee déggale ndimbal la ki nga dimbale bu leen ko këppee lor tamooy mooy déggale ndimbal la kum mu bëggutoon mu dégg ko ndax dafa ñëw ne la maag yow rek ak yàlla moo tax mu ne yaa ayyuha na amanu laa tubtilu sadaqaatikum bil manni bu leen yàqati seen sarax yi ci ñaaxe ñaaxe nag mooy déggale ndimbal li ki nga ko jox bis jot nga wax ko ko yàqu na wal asa asa mooy déggale ndimbal li koo xam ne waaja bëggutoon moom mu yëg ko ndax dafa bëccëgoo bëccëg bi ne may ma mbaamu mu lëndëm mu lëndëm gi ne may ñu yow na nga xawi personnalité nga yàqu na mu ne waaye tamit kallazi yunfiqu maalahu riyaa annaas kuy joxe xalalam te ngis ca tax baaxut nu mel yow yàlla mu ne te bam koy def kat wala yuminu billahi wal yawmil aaxiri gëmul sax yàlla bëri na kuy joxe ay koto la ay omatalu julli te mun a jullit la ma nga alal ju asaka war du ko génnee bëri na kuy maye ay bee màkkata xajihut lépp tiitaru rek yàlla ne xam nga joxe ba pare perte ko xam nga ni mel mu ne fa masaluhu fa masaluhu ka masali safwaanin alayhi turaabun mi ngi mel ni doj wu rattax muy montagne ngor bii poussière ñëw dal ca kawam poussière booba nag yàlla ji ñëw taw waaye poussière booba gannaaw ba yàlla ji tawee ku ko mën a dagaleeti amul kenn nu ko mën a dajalee poussière bu tagoon ci kaw doj wu rattax yàlla ja ñëw taw ca na poussière bay tasaarooxee yow miy joxe sa alal jàllal bi ko ñaax ki nga ko jox mbaa nga jàll bi ko weer ki nga ko jox mbaa nga def ko ngir a ngistal na ngay ñàkkee fayeeku mi ngi mel nit poussière bu nekkoon ci daj war a tax yàlla jo ñëw taw ca mu tasaareeku yàqu kenn mënu koo dagaleeti bu fa liggéey loolu nga defoon tamit noonu nga koy ñàkkee noonu nga koy ñàkkee jotee waaye ànd ak loolu boo caxee moom doy na dañ cay jëlee ay duma moo tax mu ne fa masaluhu ka masali safwaanin alayhi turaabun fa asaabahu waabilun fa tarakahu saldan su boobaa nag laa yaqdiru ala shay'in mimmaa kasabu waay waay yàlla baax xoolal ni mu daanee laay ji wallaahu laa yahdil qawmal kaafiriin kon baxi leen weer gor yi gor yi yàllaa ñu xoo foofu muy xooteeg yar ñu xooteeg sellal suñ bakkan yi xooteeg tabaarakallaahu génnee nëx nëx yu nekk ci suñ xol yi bëgg ñu daggal jubluwaay jëm ca moom xam ne lim ñuy joxeloo moo ko moom kon jarut tiitaru kiñ koy jox moo ko moom nit ki jox ko xalalam jërul ngay puukarewu ci kawam jox nit ki xalalam jërul wanewu jël nit ki jox ko xalalam jërul nga di ko ñaax matu ko yàlla ne kon nag bàyyi leen loolu bu leen ci yàqati li ngeen di def baaxut dafa leen i tardeel kon nag Saydu Xutub nitu yàlla ku mag la su ko defee yàlla na ko yàlla yërëm mu ne ñenn ci gëstukat yi ci fan yi le dañuy lëkkale delloo jëf ak fi nafsi albasariyati lil ihsan huwa al adaau fi yawmin min al ayaam wa hum yu'alliluna hadha bi anna al aqifa yahussu bi naqsi wa dufu amaama al muti mu ne xam nga nit ko xamne sa yo koy joxe rek da fay yek ndeysan ak lompañ ak ak ñak ci kanam ki koy jox lolu rek doyna doyna doyna na loo ko ca teg nag bëgg caa tegalal kàddu ak bëgg a wane yeneen comportement yaa ngi koy rey bàyyi leen tiitaru matu ko ku matul tiitar warul tiitaru kon jox leen jaami yàlla yi seen alal yi te bañ di tiitaru ci seen kaw su ko defee nag si allazina yunfiquuna amwaalum fi sabilillahi ña yàlla bëgg suma laa yutbiuna ma anfaqu mannan wala adan li la yàlla bëgg mooy joxe seen alal yi ba pare te bu leen ca tofal ñaaxe bu leen ca tofal lor ñooñu da lahum ajruhum inda rabbihim wala xawfun alayhim wala hum yaxsanuuna waaye joxe ba pare tofal ca ñaaxe tofal ca lor wane tiitaru tuus nga ci dut am yonentu bi nee yàlla jéppi na la ba ne ñetta ngi ba yowmal qiyaame yàlla du leen xool sax ngir jéppi leen ñu ne ko kan mu ne kuy dëngee waajuram ku nuur ci naan sàngara koo xam ne dafay ñaaxe ci lépp lum joxe salaasatun laa yansuru laahu ilayhim yowma alqiyaamati alaaqu li walidayhi wa mudminul xamri wal mannaanu bi ma afa ñi perte nañ loolu la yàlla wax loolu la yonent wax ci hadis bi mu ne tamit beneen hadis bi mu ne ñett a ngi yàlla sax dafa dul wax ak ñoom faat salaasatun laa yukallimuhum allahu yowma alqiyaama wala yanturu ilayhim wala yusakkihim walahum azabun alim dana leen bugal bugal bu metti al mannaamu bi maa aataa wal musbilu isaarahu wal munfiqu silaatahu bil xalafi al bil xilfi al kaasib yonent bi nee na ñett ñi yàlla du wax ak ñoom sax ngir jëpp du leen xool sax du leen sellal sax dafa leen mbugal mbugal mu tar ñaaxe kat koo dimbale déggale ko ndimbal la ak koo xam ne ma ngay sëmbatal ay yére muy diree ko muy rëy rëylu ak koo xam ne dafay dundale marchandise ma ci gëñ rek ngëñ lay jaay ci ngëñ lay jënd billaahi maa ngi ko jëndee nangam billaahi fay nañ ma nangam billaahi yaa li nga bokk ci kër gi billaahi liñ bokk sëriñ bee tax kooka bu ëllëgee yàlla fu du ndigam de yàlla lim bëgg daal qawlun maarufun wa maxfiratun xayrun min sadaqatin yatbauha azan wallahu ganiyun xalim yàlla nee na wax juñ xam ju rafet ak jéggalu moo ma gën joxe ba pare tofal cag lor waa ji ñëw ñaan la mbaa laaj la nga ne ko baxal ma àq de xamoon naa yéene dimbale la de tee nga jéggal ma ba weer wi dee wala nag ma dimbale nga jaaraat fi wala wallahi boo ko fekkoon ma jox la ko te ca mu ne moo ma gënal nga dimbale nit ki ba pare tofal ke sa kàddu ga waaw loolu ngaa tax ba pare màbb ko te loolu baaxut kon nag kalimatun tayibatun taquluha xayrun min sadaqatin tuxrijuha kon nag fa tamunnu biha wa tu wa tu wa tuazzi biha loolu baaxut kon yal na yàlla musal ñu ci bu baax a baax a baax loolu mooy li am solo te ñu ngay dimbale kat dañ laa dañ laa dañ laa xoyofal xen rek yaa ngi jëm àllaaxira mu dooy waar lool diis lool ku la wax ne kaay ma xenul la sa xen bi wàññil la ko doo ko gërëm moo tax ki ngay dimbale boo ko xamoon yaa ko war a gërëm mais moom warul laa gërëm dafa laa wàññil ab xen bu jëm àllaaxira ndax li koy jox moo ko moom alquran nee na wa aata wa aatuhum mimma lillahi lazi aataakum jox leen leen xalal yàlla ji nga xam ne yàlla leen ko dénk rek jox leen leen ko jërul tiitaru su ko defee nag kon joxe na ànd ak sellal nga xéena ci ak jaamu yàlla yàlla la nekk fa moom ci sellal lañ koy xamee wa ma umiru illa li yabudullaha مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة بين آية 5 moom tamit la yonent bi wax ci alquran la wax ci kat yàlla wax ko nettali ko ne qul inni umirtu an abudallaha muxlisan lahu diini zumar aya onze mu waxaat tamit ne àlla lillahi diinul xaalis zumar aya trois yépp nañ koy bàyyi xel ku bëgg yàlla daal del joxe la ngay joxe te fekk yalla rek tax nañ koy xel yonentou bi neena man ahabba lillah wa abqada lillah wa a'ta lillah wa manaa lillah istakmala al imaana koo xam buy bëgg yalla tax muy bëgg bëggul kenn ci intérêt soy bañ yalla tax ngay bañ bañoo kenn ci sa bakkan tan ko tek ci bakkan da lolo bari mu yokk la rek buy joxe yàllaa tax muy joxe buy xeñ tamit yàllaa tax kooka de matal na gëm yàlla kon daal ab jullit warul def dara lu dul mu jublu ca faggu yoolab yàlla soo ko defee rek xam jàmm bokk ca ñu texe ña te xam nga ñaari qaayida dañ fee nekk qaayidataani baatiniyataani waaye qaayidataani zaahirataani ñaari qaayida yi nga xam ne mooy yu baatin ya mooy bëgg ak bañ mbiri baatin la di bëgg ak bañ kay yàlla rek moo ko mën a xatte waaye loo ca def na yàlla tax ñaari qaayida yi nga xam ne zahirataani lañ mooy jëf ak baxi moom la xaddis bi boole jëf ak bax lu feeñ la boo jëfee ñu gis ko boo baxee ñu ba ñu gis ko waaye ñuy gis ak ñu gis yëpp daal bu yàlla texee rek nga xam jàmm bu yàlla taxut nag danga nga tert perte goo xam ne da nga ko réccu ëllëg su ko defee nag kenn ci gaa yàlla yi dafay wax ne ixlaas huwa maa laa yaktubuhu malakaani wala yufsiduhu saytaanu wala yaqla'u alayhi insaanun mun a gis nga sellal lu dansé la malaaka sax mënu koo bind ndax du mun gisu ko saytaane mënut koo yàq fi ko yàlla denc sori doomu aadama du ko gis moy jëf jo xamne nga ko def rek ta yàlla tax motax yonentou bi ne wallahi bu yàlla dagale hon ñu jëk ñang ñu mujj ñu yowmal qiyam dekkil leen dana leen xoote ne wallaahi man kana ashraka fi amalihi lillah ahadan fal yatlub sawaabuhu min indihi fa inna laa axna surakaay ani shirki ida jamaa allahu al awalina wal axirin yowma alqiyamati li yowmin laa rayba fihi naada munaadin man kaana ashraka fi amalihi ahadan falyatlub sawaabahu min di yonent bi nee na bu yàlla dagalee ñu njëkk ñaa ngi ñu mujj ña yowmal qiyaam ci benn bis aji xoote day xoote ne képp koo xam ne la nga jëfoon man yàlla ma demal ca ka taxoon nga jëf ko mu fay la tey nga perte de kooka du xam tus koo xam ne li nga jëfoon maa tax nag ñëwal ma fay la kon nag nañuy bàyyi xel ci jëf yi jël yëpp di ko delloo yàlla suñ ko defee xam jàmm anas ibnu malik mu ne maa dégg yonantu bi ne yu jaa'u yowmal qiyaamati bi suxufin muxattamatin fatan fatansif bayna yaday laa fa yaqulu llahu taala lil malaikati alquu haada waqbalu haada fa taqulu almalaikatu wa izzatika ma raayna illa xayran fa yaqulu llahu asa wa jalla huwa aclamu in kaana in haada kaana li gayri wala aqbalu yowma min al amali ila ma kaana ibtaxa bihi wajhi mu ne bu yowmal qiyaame téere yi yàllaay wax ne andil leen ma téere jaami yàlla yi ñu kaste ko mu sampuhu ci kanam yàlla mu ne malaaka yi tas sànni leen lii nangu leen lii malaaka yi ne ko ñu ngi tudd sax yàlla ñun lu baax rek lañ ci gis yàlla ne man maay ki xam de lii de nangu naa ko ndax maa taxoon lii de nanguwuma ko man duma nangu jenn jëf duñu jëf lu dul te fekk taxuma kon nag baxi leen xel yaay wàllis na amanu laa tubtilu sadaqaatikum man manni wal asa ku ko def bàyyi ci xel bu ëllëgee doo perte su ko defee nag euh, la waykat ba waxoon rek bayal lu rafet su ko defee bu ëllëgee nga góob lu rafet li nga bay rek moom ngay góob waaye nit mënta góob lu mu bayut kon nag beneen waykat ba ne ko bul tàbbal tiislu yow aji laaj ji bu mu ñëw di la laaj ba nga tiislu ko li gën ci sa dund mooy li nga joxe benn waaye dafa daan wax ni nguur su fekkoon ne neex na la ma jàpp ne mooy la ca neex mooy fajal soxla yi ñu xamul soxla rek loolu rek moo neex ci nguur ku yàlla dogal sa loxo jot sa gannaaw nit ñi xam soxla yàlla xebal leen ci yow nga fayal leen ko loolu de aka neex ci xolu ku gëm yàlla waaye aka naqari ci koo xam ne ni gëmut yàlla kon nag bàyyi leen xel ci laajkat yi bu leen leen doxa dal amal yatima falaa taqhar kon bu leen di gëdd miskin yi ah bàyyi leen ci xel bu baax yénoon tooy nett li ne banu Israil xamoon na ñett kenn ki dafa xame woon feebaru baras kenn ki dafa gumba kenn ki dafa paralysé ñoom nag ñi bëgg kenn ku ci nekk jàngoro ju nekk ci yow yàlla delloo ko yàlla xebal am malaaka mu ñëwal ku baraski ne ko loo gën a bëgg mu ne ko sama melowu ñaaw wi daal ma xam melowu rafet sama jàngoro ju dem loolu de laa bëgg xaalal lawnun xasanun wa jildun xasanun ويذهب عني الذي قد قذرني annaas li ma nit ñi séexloo laa bëgg mu dañ malaaka ma raay ko rek jàngoro ja dem mu xam melaw rafet mu ne ko xalal ji loo ci gën a bëgg mu ne ko gëléem wala mu ne ko nag dañoo sikk ñi ne nag la wax ñu ne gëléem la wax raawi bi moo sikk ci hadis bi dafa nekk ayu maal ahabu ilayka qaala al ibilu aw qaala al baqar raawi bi moo ne daal nag la wax mbaa gëléem sakkaraaw yi mu jox ko gëléem tabaarakallaahu gëléem goo xam ne ëmb na ba mat fukki weer ci ëmbam ba moom la araab yi gën a bëgg ci gëléem bu ko defee nag mu jox ko ko mu ne ko yàlla na ci yàlla barkeel mu ñëw ci nga xam ne dafa paralysé mu ne ko loo bëgg fekk na kooko sax ndeysaan ndeke daf maanaam dafa boole ak lel xamut kawar mu ne ko karaw gu rafet laa bëgg yàlla jëlee fi li ma nit ñi xeebee mu raay ko rek kawar ga sax mu ne ko loo gën a bëgg ci xalal yi mu ne ko nag mu jox ko nag wu ëmb mu ne ko yàlla na si yàlla def barke mu ñëwal ko gumba ki nag ne ko loo gën a bëgg yow mu ne ko damaa bëgg rek sama bët yi gis maa dem fenn ki may xommat sax dafa maa jéppi mu raay ko bët ya ñëw mu ne ko loo gën a bëgg ci xalal yi mu ne ko ay gat xar ak bëy mu jox ko ko su ko defee nag giléem euh, xar yeeg bëy yeeg jur léegi nag fa kaana li hada waadin min al ibil kam joxoon giléem nga ñaanal ko barke xam na aw xuur ba mu fees ci ay giléem ka ñaanoon nag jox na koon nag ba mu fees ci aw xuur ka ñaanoon gàtt tabaarakallaahu jox na ko ay gàtt ba bari na ba amatul fu mu ko xeew ah ki nga xam ne dafa xame woon feebal feebaru baras yaram waa nga kenn xamul la muy niru yàlla xebal am malaaka mu xame melow ku baras ab miskin ñëw fekk ko ca xuur wa ndeysaanam di ko yalwaan ko man de dama néew doole ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته فقال رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا آه أتبلغ بي في سفري فقال الحقوق كثيرة دوم آدم أقاو فاتح kii ñëwal ko ci melo mi meloon démb ne ko samay buumi pexee dagg maa ngi ci tukkee bëgg yóbbu bëgg a xegg ma lu ma yóbbale waaye waay doo ma dimbale ci paas bu ma yóbbu rek maa ngi lay ñaan ci baaxal yàlla mi nga xam ne moo rafetal sa melo bi le xoolal ni nga rafetee jox la xalal ju bari jile mu ne ko man de sama sars dafa bari li ma gàddoo bari man daal mënuma laa dimbale ndeysaan miskin bii xame melow démbam wile ci feebaru baras ne ko ka nii aarifuka ka an lam tàkkoon abrasa mu ko yow dafa mel ni ma laa xàmmee te du démb yaa xamee yaa amee melow baras woowa ba nit di la di la di la di daw di la xeeb yàlla jox la tey sa melo wii haa xaa nga ko fàtte <clears throat> fa qaala innama waristu haazal maal kaabiran han kaabirin mu ne ko toppal fi ba ma waxati lii man xalal ji maa ngi ko doonoo ci samay baay ñu ko ci seeni maam seeni baayaat yow daal dangay ngay nar rek ne ko su fekkee ne lii nga wax fen la yal na la yàlla delloo xat ci sa melo woowa fa qaala in kunta kaasiban fa sayyaraka allaahu ilaa maa kunta yàlla nga melaat ni nga meloon waay su fekkee li ngay wax du dëgg tey mu dee waaje tamit moom malaaka mooma solaan bu bu nit xamee melow ku lel saxut benn kawax ñëwal ki leloon kala démb bu ñàkkoon ñëw ne ko ah man de damaa néew doole bëggoon ko ma dimbale kër ga dara néew fa mu ne ko man de xaw ma lu ma la dimbalee mu ne ko yow dafa mel ni ma laa xàmmee te du ki démb yaay koo xam ne sa bopp baa ngi leloon xamoo benn kawar mu ne ko da ngay man man mosuma teqalikoog lii mu ne ko su fekkee ne yow li ngay wax lii dëgg la yàlla ngay fen du dëgg yàlla na la yàlla melal ni nga jëkkoon a mel in kunta kaasiban fa sayarakallaahu ilaa maa kunta mu ñëwal gumba bi ca meloo gumba la ko ñëwalee di làmbatu daj ba yegg si ci moom ne ko man ibnu sabillah in qataat biyal xibaalu sama buumi pexee dagg ci sama tukki xaw ma lu ma yóbbu dimbale ma waay haa dimbale ma waay ci baax ak yàlla ak yàlla mi nga xam ne moo delloo woon sa bët yii nga gumba woon mu jox la gàtt yi le dimbale ma yow fa mel ni ma laa ne yaa gumba woon démb hmm. mu ne ko da ngay kàcc man mosumaa gumba lii ma xam yépp sama góorgóorloo moo ko may ah, léegi nag ah, léegi nag tabaarakallaahu kooka tamit ne ko mënuma laa dimbalee dara waaye gis nga leen wanee gannaaw ñoom ñëpp delluwaat ci lañ melaatoon kon dëgg-dëgg nañuy baxi xel ci yàlla tabaarakallaahu waaye doomu aadama fa gaaw a fàtte lu mënoon a mel ak lu mënoon a xam ki ki ñàkk ki ñàkkoon sonn ki ñàkk bu demee ba xam fay fenn mosta ñàkk ba ku ñàkk bu ñëwee di ko yalwaan mu fàtte lam njëkkoon a nekk ak fàtte ñam njëkkoon a mel kon nañuy baxi xel ci lile lépp suñ ko defee rek yàlla mën nañoo dimbale bu baax a baax a baax a baax yonentu bi nee na ina awala yi إن أول الناس يقضي يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتى به فعرفه نعمته فعرفها قال فما عملت فيها قال قاتلت فيك حتى حتى استشهدت قال كسبت ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل ثم أمر به فصحب ala wajihi xatta ulqiya fi nnaari yonent bi nee bu yowmal qiyaama ñi yàlla njëkk xatte bokk na ca koo xam ne nii dafa sahid dee ci xare waaye dafa ñëwoon di xare rek bëgg ne ñi bëggoon na jàmbaar la boo léegi mu dekk ci kanam yàlla yàlla ne ko waaw yow doole jama la joxoon loo ko def mu ne dama caa xeex ba sama bakkan bi def ca mu ne ko da ngay kàcc xeexoon rek ngir bëgguñu ñu ne jàmbaar nga wax nañ ko jeex na loolu nga ca xam ak boroom xam-xam bu doon jàngale jàngal Quraan mu neex mu jàngale xam-xam ba rafet yàlla ne ko xam-xam bi ma la joxoon loo ca def mu ne ko jàngale rek laa ca daan def di di gindi nit ña rek mu ne ko da ngay kàcc da ngaa bëggoon li ngeen yaa bëri xam-xam te neex baax te mën a waare wax nañ ko jeex na yàlla nañ ci yàlla musal keneen ka nag tamit foo ko mu nekk ñi njëkk njëkk a dugg safara la ñuy bokk mu ne ab góor goo xam ne yàllaa wasagaloon yaataloon wasagam jox ko xeeti xalal yu bëri yàlla laaj ko xalal ja loo ci def mu ne ko jox joxe ca rek ku mu masa laaj jox naa ko mu ne ko da ngay kàcc da nga doon joxe ñu ba ñu ne da ngaa bëgg da ngaa tabe wax nañ ko jeex na perte nga kon nag nañ baxi ngis tal képp kuy ngis tal sa xalal dem nga perte nañ fexe bañ a dugg ci fa waylun lil musallina allazina an salaatihim saahuuna lu ca tegu allatina hum yurauna wa yamnauna al mauna nañ niñ ci yàlla musal da nga dugg ci walladina yamkuruna sayiati lahum azabun shadid wa makru ulaika huwa yabuur baaxut nañ bokk ca gaaya yàlla wax ne fa man kaana yarju liqaa rabbihi falyamal amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbi ahada nañ mos nañ nañ nañ bokk ca wa masala sa yunfiquna amwaalum tiqaa mardatillah wa tasbitan min anfusihim كمثل جنة بربوة أصابها وابل فأتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله ما تعملون بصير بقرة آية 265 لي كوتشاني دانغا تخيخ لك يلا إن شاء الله بوالي من بوكوتي إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تفكرون كون آية جانغوك yonent bi nee na ku déggatal yàlla déggatal sa déggatal yi man samaa samaa allahu bi wa man yuraa i yuraa bi <coughs> yuraa bi kon nag ngis talangoo ak déggatal day yàq jëf alhamdulilah rabbil alamin yàlla yàlla musal mu ci <coughs> nañ moytandiku yaa allazina aamanu laa tubtiluu sadaqaatikum bil manni wal azaa kallazii yunfiqu maalahu ri'aa naas <coughs> nañ ko daw ndax bu ëllëgee ñu mucc kon aaya yaa ngóob di juróom ñetteel ci xoote yàlla yi boo ma toppee suba ci waxtu yi ma dugg ak yow ci juróom ñeenteel yi bi mu yaay walisina amanu anfiqu min tayibaati maa kasabtum wa mimma axrajna lakum min al ardi soreewut yàlla bëgg nañuy joxe lu teey lu baax bañ a joxe lu bon loo xam ne nii ku la ko doon jox doo ko nangoo jël bul ko jox nit ki weccat kenn bëggul koo jël kon bu la yàlla joxale tee xalal ju bëri del joxe lu bëri kenn ku nekk deel tooyale ni nga tooyee bu loolu xamee jàmm na ñooy kooku nag tabaarakallaahu mooy yaayu haji juróom-ñeenteel ci suratu baqara danaa ñëw ak yow ci yaayu haji nga xam ne mooy fukkeel bi su ko defee suratu baqara mu yaayu taqullaha wa saru ma baqee min riba ci riba lay wax su ko defee fekk ba muy jeexee topp ma suba ci waxtu wi insha allahu in uridu ila al islam mastataatu wa ma tawfiqiya illa billahi alayhi tawakkaltu inni wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh